ñu den def mu laaxasa bu ndaw ci mbindum sëñ Touba mbindum bi nag yàlla la ciy taw féexale ndax euh, dafa dafa am lu ci nekk boo seetloo ni muy tagg yonent bi teggi ni ci nekk ak buy tagg yonent bi wàccuwaay bi mu koy jox te bi mu koy taggee na ngay bàyyi xel na dafa nekk ci ay circonstances yu tal yu tar te léegi-léegi lu ñu tuddi luzumu ma lay yelzam lay taggee xoola lu mel ni asiru ma al abrari xiina asir mhm. wa zanna al ida anni hunaka bi mu koy tëgg mu ngi ci ay xat-xat xam nga ne wax na ne xusuuri xallat wal ahla an ni tafaraqat li maddaxi lladi anhul madihu xasiyu sama kër yëpp gent na ndax dix mille huit cent quatre vingt mu génnee Touba Touba dafa gent sëñ Modou Fall xoon rek fa nekkoon sëñ mu Ka di wax ne taalub sëriñ ba fay fa Touba wal ahlu an ni tafaraqat booba sori na njaboot gi tàggoon na ak ñoom nee na lan moo ma yóbbee kër gu ràpp lan moo ma yóbbee sori njaboot li maddaxi lladi an xul ma dixu xas yi mooy bëgg a tagg rasulaay rek te mbub mu ma seet ba jàpp ne jot na moo ma gàtt loola moo moo ma yóbbe coono boo xam ne fu ma toll ma di ma di ko tagg mo boo xooloon lu mel ni mawaahibu naafiq fi madaihi shaafi wala muqaddamatul amdah fi mazaya al miftah wala jasbul xulub damay wax ne doy na ci boo ko dugaloon ci biir ay tag mu wedam loo lu bari lu ko waral moo di xoolal ma baax yi bu nit ci sëñ Tuubaa tagg yonent bi ca tuddul turam ca saakal muniiru saakal bashiiru lahu ushiiru bi sa sanaa ki ma leen di wax boo leen ko xamul mooy projecteur bi nga xam ne moo daj jamono saakal muniiru daakal bashiir mooy mbégte mi lahu ushiiru kookee laay junj bi sa sanaa yi ci tagg woowee muy ma baax bu naafa wax ne yonent bi mooy koo xam ne kenn du mel ni moom du ja kenn du jàmbat fi moom te la ngay jàmbat faju ko ku jooy ba ñëw fi moom mu far say rongoñ muy mushkil li shaakin bishrun li baakin noonu mu ko taggee boo xoolee ci ma Naafi bu na nanga xam ne xasiide yi fi ñu koy taggee sëñ kab yi du ko amoon jot rek yoru xelimaam ak daam di gaaruut man naxwu toog di ko way déedéet da koo tagge foo xam ne fu sore bis dañ koy jàng ci njëriñ ku ñu wax sëñ Mahmoud Fall moo ko doon jàng ba yàgg ku ñu wax ak Cheikh Ibrahima borom Daarul Moxti Cerno tàggoog sagoom daanu génn sëñ bi jël loxo bi teg ci bopp bi ndax nag kuy jàng wala déggi ni waaye arab yi kiy jàng ki muy jàng la daaneel na ko naa la ci wax lu gën a yéeme nag na ko wax ji fañ ko doon waxe kun fa yóbbu woon ku dul sa waa ji doon ko ne am na lu mu fay wax lu ko fay jëlee lay doon waaye du mel nii kon xam ngeen ne fa mu ko doon waxee wa toogutoon rek am jotam te bëgg yonent bi yóbbe woon na ko am na ci xasaa yi di mu taalif ci géej gi yoo xam ne xam ngeen ne ay wormaam mayoon na ko daawul tagg yonent bi muy bindee turam daaju xong la koy bind am na bis boo xam ne daaju xong ji dafa jeex muy bind di bàyyi diggante di def estogas ngir ne amee daaju xong bind ko benn bis nag muy tegale ba yàgg mu fàttaliku ne nga xam ne saatu si lay jël bu ne cap mu bënn mu sëpp ci xalima bi bind turu rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax mu jiitu ñëpp ci alayhi salatu wasalaam moom Cheikh Amadou Bamba ba waxal boppam ne man jiitu na te jiitu googu leer na ñi fi nekk ñëpp sëñ Tuubaa dafa xam ne ku yàlla may tomb wilaaya walla nga am texe wala nga am tawfiix xam nga sa sama bi boo delloo ci baabu shahaadaat sa sëriñ Alaaji Maalik Si radiyallaahu anhu dafa am ñaari yu ma jàpp ci ay waxam man li may jàppee ci waxi nit mooy li nga fi nga teg sëñ bi ni nga waxe ci moom loola laa ca jàpp moo tax benn bi dafa wax ca njar ma te wetam moom Alaaji ñuy waxtaan ba yàgg am ñu fa tudd sëñ Tuubaa ci jataay bi fekk nit ñu baax ñi lañ doon waxtaane kuñ tudd tudd keneen mhm. alaaji Malik ni ci yitteem rek ba yàgg am ko tudd sëñ Tuubaa alaaji Malik bàyyi lam doon def daal na gees mbooloo mi ne leen ba ngeen fi dalee wax ak léegi mbooleem koo leen fi tudd ci nit yàlla yi ku ci nekk am na bis bu muy rëcc ci digganteem ak boromam ba mu des Ahmadou Bamba moom daal na te moom nag mës sa jëf lu ko astaxfirlaa du fekk négul bay mag door mel daa gane jamono ma daal di ca teg ne daal di wax feneen ne sëñ ma rubba Gueye la ko wax lettre boobu dafa wax moom El Hadj Malick ne ko faalam yaa ma rubba an na mënta daqala bay xamadu bamba fi alaqati baynana fa innahu wa in adaa taxaluq bi malik fa inna malik bari min dane ko na nga xam ne sama relation bi maam ak sama mbokk mi di sëñ Touba képp ku dox ngir bëgg ko yàq boo ko yëgee boo ko yëgul te aju ci man man malik génn naa si yow te koo kenn ci waar réew mi abu noama te moom la ñuy wax bukunta bi sëñ bi demee ci géej gi dafa am ku ne ko ku mu ñëw ci moom ci taalibe yi mu laaj ko ana sëñ bi mu ne ko dem na ci géej gi tubaab yi yóbbu nañ ko la ko wax mu ne ko déet neel jaamu jeena yàlla fa ko sopp daan na ko bi mu daataan dem miir bu rëy la dóor ci réew mi kenn dafa amul taalibe te dellusi loolu tax maa ba boole Niger ak Mali dafa bi ñu fi nekk di xaadir xam nañu Cheikh Sada bi sëñ Tuubaa seeral na ne waliyu la sëñ Tuubaa ne min nii ilaa Ahmadou Bamba la ànd laa man baxuda wa saba mujibuhu am rek sama lettre bii li tax ma bind ko Cheikh Ahmadou Bamba ñaar rek a ko waral daal di wax na yàlla nag mere na yàlla rëbbu na ku ŋàññi sëñ Touba baa nga bañ moom Cheikh Fall bi daana sabab bu ma bind ko lettre bi ñaari mbir képp la al awwal an laa tansaani mooy xam naa ni koo séddu dana diñe bul ma fàtte yow Cheikh Khadim wa saani an laa tansa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hahuna wa gada saxtuwaa bi sëttaru fi yow mal xiyaam bu ñu fa demee it bul fàtte ñëpp te gis nga sëñ kab xam nga dégg gëm gis weddi dafa sëñ ku ne ameel na ko njukkal ku ne ameel na ko njukkal moo di bu nit bu ñu jàppoon ci ab kaso dañuy wuti ab avocat ngir mu layil ko ci kanam procureur bi ngir mu am ndam sëñ nag daf noo layile foo xam ne noonu xeetu rasulullah yëpp jotiwuñ foofu nee na bi may liggéeyal yàlla benn liggéey bu ma jël danaa ko paqueté ba mu jekk bu ma ko yëdd yàlla dama koy boole di ko kañ yaa sal wujudi wal baqaa'i wal xidam yaatal mu xaalafati xus mi nil xidam yow borom des gi borom mat gi liggéey baa ngi nee na yàlla danaa ma dellul ba xam adduna am na ci wàllam déet nañ ko jeex dañuy jël liggéey bi di ko di ko di ko wirifé di ko wirifé ba ba yàlla suñu borom na ko adduna waat ñu ne bakkan ñu ne bànneex ñu ne seytaane ba ñeent yooyu yooyu yëpp mat suñu borom na ko léegi nag ginnaaw jëf ji mat na nangu naa ko man maay ki dul jeexal te loo ma ñaan mu may la dossier bi sëñ Tuubaa jébbal yàlla laa wax ne kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadu rasulullah ameel nga jërëjëf ndax li tax mooy bi ko yàlla ne loo bëgg ma may la ko ñaanalul boppam dana ko xam nga ne yaa wax ne yaa ayyuha naas inna wa'dallaahi haqqun falaa taxurannakum xayaatu ya wala yaxurannakum billaahi l-xuruur yow li nga diggee du dañ te yowmal xiyaam jaam ñëpp dañeen teew tànk bu nekk juróom-ñaar fukki tànk taxaw yuuru jaam ñi di xet ku seen ndeyam daw seen baayam daw kenn in yow ma kenn ku nekk sa bopp lay doy sëñ Tuubaa na ko bis booba buñ fa yeggee ku yaakaar rasulullahi booba wa najjihim wa aafihim waltuf bihim wala tuwaaqisum bi kasri zanbihim muccal leen yërëm leen jéggal leen bu boobaa seen bërig bakkaar gi bu ko jàpp ndax buñ la moyen dañoo sàggan waaye xam na ne yow doo ngay buur te seen i jëmm sax moo ëttalul liñ leen teg kon loola sëñ kat bi mel na ni na ci rek ndam ndamul ndamul sëñ Tuubaa ndamul ndamul ndamul ndamul Sénégal la sëñ Tuubaa ndamul adduna la sëñ Tuubaa ndamul der bu ñuul ba bu set ñu ñu màggal nit ci ne moo nu may istiqlaal muy indépendant wala joué na rôle bu rëy ci sunu indépendant réew waral institut ak mbedd yi ñu tudde leen ko ngir ne ñoom joué nañu rôle bu rëy ci l'islam ci ci seen ci indépendant Sénégal pour der bu ñuul ma bopp mais pour diine tënku tënku diine firee ko moom bopp ñaata jàkka nekk Sénégal ñaata jumaa nekk Sénégal ñaata fiix la nit ñi am bu la neexee di jaamu sa borom yor sa course di dox ci mbedd fu la lan moo indi istiqlaal boobu kan moo dagg buum yi tënkoon lislaam ba tax mu moom boppam dara